ne moom mooy président ay fii di Modou Gueye waaye avant loolu yëpp fekk na Madou Gueye yaa ngi yaa ngi agro nekk ci tracas di defante tracas di joxe tracas mën na social te buy social ma sàmm du ko ma dem ba du ko yëg. Madou Gueye jàmbaaru fàq tëdd ji nga xam ne nii. tubaarkàlla macha allah ñàkk koo xam wóorul ñàkk a jëflante moom waaye ñàkk a jëflante moom ku def ci yow social wóorul mooy saw barki démb bi ñu nekkee ca Alioune Ndiaye ca Arène Nationale Malick Mbaye ba mu ñëwee ku nekk borom laa dóoru kiwoon teral na leen. na taxawal ñu bëri ñu doomu borom may ma yëpp taxawal teral na leen. kon madame Guèye bu fekkee ne dafa ñëw di def fii teraanga fii ci marché Sénégal bu fekk fi jàmbaru fàq tëdd yi. Hmm. nga xam ne ñu ñàkk tëdd rek la ñuy dundee. bu fekk fi jàmbaru fàq tëdd yi. jigéen ñi nga xam ne nii. fajar la ñuy xëy. jigéen ñi nga xam ne nii. bu quatre heures du matin jotee boo génnee ci marché bi ñoom ngay dajee. jigéen ñi nga xam ne boo leen fekkee ci marché sama leen ko bu ñu jàll kenn du lekk. góor ñi garde leen. jigéen ñi nga xam ne ñu tubaarkàlla macha allah kenn néew ci bu ma doon góor. jigéen ñi nga xam ne ñu tubaarkàlla macha allah ñoom ñëpp xam nañ seen bopp. fii lañ dëkk ñii fii lañu sëy ñii fii lañ amee tànga ñii fii lañ tekkee. Tamba Tamba kii Mbacar Tamba kii joxal booba daal di. jigéen ñi nga xam ne nii ci lu jëlee suuf naa si semaine bii ñii Serigne di ñëw Serigne si ñii Serigne ngeen jëndee ñii ba ñu jigéen dëkk ba ñëw dañ ne ñii ma fekk si war nañoo am nañ doom dañ ma gën a am doom. waaye ci barkam yal na yàlla muftal. mooy juróomi seet yàlla jur sant sant Seydina Muhammad kii nekk sama sama ndey la. ndax nag waaye daw na ma la ñuy ñaanal yàlla ko yàlla xara àjjana ak ngoon ngir muy moon siisee mën naa ko waat ci yàlla nit bi fi na ko tey moo koy organisé waa ne tey fii laa jikkoo xam nga ñu nekkoon ci zone bi Ablaye Ngom numéro un papay pap Ngom sëñ maam dédicacé Mouhamadou Sow Aliou Seydi Guissé Amadou Faye Pape Mboy ñeent kër yi fi nekk man fii laa juddoo marché bi tëri bi moo dox suñu diggante ak famille lóom-lóom yi ak sawre ma fekk lamb bi dugg na mu commencé fii jëm ca biir xale laa bu ndaw jàngee ci kon dégg yow lii nga def nii c'est une première fii ci marché lii yaa fi njëkk ko organisé ak fan présidente des femmes responsable des femmes de marché soxna lii yaa ngi fi njëkk a def yow du gën a def mosu fi am. dama ne jigéen ñi woo leen. jigéen ñi woo leen. waaye nag. Diouf di dugg soo di dugg fay mooy dugg ana Diouf dégg nga lii waaye boo àndee ah. tumaani ànd ak xaani hmm. dañuy ñaan yàlla na yeggal suñu saxu allahumma amiin yàlla ak hmm. yaay ci agro dugg si fii mi ngi ci terrain mi ngi ci femme développement yi femme activiste yi femme yi jàppale tubarkal li ñuy liggéey ñi gëm seen bopp la mën a liggéey bëgg na femme yëpp am terrain yëpp bëgg na femme yëpp am seen yi bëgg na femme yëpp di jóge fii ñu doon ay GP di voyage di dem di dikk te nag yaay agro lu ne bi ci biir kon yal na yàlla barkeel te loolu su tàkkeewul. Modou. Mhm. li nga naan loolee loolee ngeen bëgg. Mhm. mu yegg si ci marché bi. wallaay dafay yegg si moo tax ñu ñëw. ma ku ma sa nekk délégué marché bi li jëntiwu ko sama yoon newut fekkeewu ma ndax nag li di wax ne police moom li mu xam li mu bëgg maa fekkee waaye li ma fekkee mooy Malick Gueye nii neen xale délégué xale ngeen wax waaye dama ni Malick Gueye nii liggéeyal na mbooleem jigéen ju ne ci biir marché bii ak beneen marché lu tax kay waa yaay ji ak loolu dugg si li tax ma wax loolu mooy délégation madame Gueye ma wax loolu. micro. tax ma wax loolu mooy maa liggéey dafa liggéey lu tax tey yaay yi ak ñëw fekk si leen ànd si ak yéen bés bii. li mu du man maa koy wax. leen indil du man maa koy wax di war a wax nit waaye dama bëggoon ngeen xam ni ngeen jàppoon Malick nii benn dolliwaat leen ci fukk ak juróom-ñeent muy ñaar fukk ngeen dolli koo téye. danaa Malick xam naa ni bëgg Ousmane Sonko ko ndax bëgg soppi ko waaye danañ fexe ba président Mamadou Gueye ah! recevoir la. te bu la recevoir di nga xam ni sa jigéen ñi dañ wax ni maire délégué xale président xale waaye yow Amadou Mamadou Boye mooy xale bi nekk ci département de li ñuy wax dafa am solo te li may wax bëgguma mu yem ci baas bi damaa bëgg mu génn ba dem ci biir kër yi ñu di ko léegi parce que ñaari kër yi di fii. très bien damaa dëgg lañ koy jël. bi ma nee mos bi leer bi seytaane rek yi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi nuyu jigéen ñi nekk fii ci marché Sawanel di leen jox seen cër ak seen wàccuwaay di leen wax asalaamaaleykum waaw fay leen ko dégg moo leen de asalaamaaleykum waaw gannaaw bi ñu nuyoo man mii di wax ak yéen di Toumani Seck ànd ak suma xarit suma doomu ndey yi Khadim Thiam ak saam yi nga xam ne tey lu jig mooy jàkk ba yaay ak agro fii jaaree ko suñu frère suñu xarit di nit ku baax di Alaaji Malick Gueye dafa ñëw mu seet ñu waxtaan Alaaji Malick am wax ñu am am yu waar yu mu wax mu ne ma tumaane dama nekk marché Sawanel dox suma tànk ñëw fii li tax muy ñëw dama ànd ak jigéen yu am jom maanu ragal yàlla te loo leen mu doy leen te ñu ay jàmbaar donc alaaji Malick li nga wax ne am na solo te ni ngay waxee man xam naa li ngay wax ci mu ne maag Samin dañu waxtaan ma dégg yaay jaagoro dégg madame Guèye ni muy dimbalee jigéen ak ni muy jàppalee jigéen dama dara ñoroon suba ak ngoon guddeeg bëccëg dóor jigéen ñi nekk marché Sawate fu fu ndimbal ne fu baax ne fu yokkute ne ma fexe ba ñu jot ci ma am ci. moo waral samay kanam ñu man loolu nga wax rafet na. Olof Ndiaye dama ne. maanaam ku bëgg fu mu fanaan ak ku bëgg ku ko wéccali delloo bunt bi du leen boole. kon nag yaay da agro ànd ak Malick ñëw fi ci jigéen sawari ñu war a ànd di liggéey yokk cere doole ñeex la kon ci kaw loolu dañuy ànd ak jigéen ju am jom ju am fulla ju am fayda ju am fit jigéen joo xam ne mënoon nañ ko sax dàkkante leen ndax góor parce que taxawaay góor la taxaw ci jubale askan muy madame Guèye di jàpp i soxna yi moo ko duggee comme ni ko Ngaye waxee di meeru ji de caalay kaw di directeur des domaines. Aja Fatou dafa yàgg liggéey di dem jaar na fu ne dem na Chine dem na fu ne mais damaa fas yéene jàppale jigéen comme ni ko suma doyee waxee ba mu commencé liggéey yàgg na boobu xamagul président moomu liggéey ba yàlla boole leen sëy mu ne comme sama jëkkër dafa nekk di politique. may jiite damay takk sama digg laxasaay nekk bàyyi faal fu mu teg tànk ma teg fa ca des mu ne li may def nag mooy la ma daan def démb ak barki démb dama koy continuer def li ma bëgg a def mooy damay teg usine boo xam ne yaaja agro agro boo ko déggee mooy lépp loo xam ci transformation lay nekk mais nag may dem di voyage bi ñëw li ñuy tekki ci avion yi meññeenteel bi suñu biir réew mi lañ koy defaree da nga am suñuy papa ak suñuy nijaay ñu daan dund ba am tey kenn dundatul sa ba am juróom fukki at ndax la bureau bi ñuy nekk ak lii yóbbu ñu ko transfert bi te lépp fii lay ñoree kon nag dinañ fi créé usine boo xam ne loo xam ne dañ koy transformé dinañ ko jàngal jigéen ba jigéen ñi mokkal ko ñu jox leen produit buñ ko liggéeyee mooy jëndaat ko ci ñoom def ko ci entreprise bi bu leen neexee tamit ñu koy tuddee parce que loolu mooy sukkali Sénégal loolu mooy tax jigéen ñi dem usine boobu ñu koy tabax léegi ba pare mu ne koy tabax usine bi usine bi day jël temps dina jël gën gaa néew juróom-ñeenti weer wala at dafa ay financement yoo xam ne dama a indi pour jàppale jigéen ñi ma ne ko yan financement mu ne damaa indi ñetti type de financement financement bu ma ne ko loolu ko fas def mu ne damaa bëgg képp kuy jigéen nekk fii ci biir Pikine ak lu ko wër dinaa fexe ba mu ne tey jii njëkk ngay jaay. booy ñëw yaay ne agro dina la jox ceeb jox la diwlin jox la soble jox la pompiteer jox la climatique jox la lépp luy ànd ak yaa xam kafe yaa kafe yaay ne agro daal leen laa fa gisagul muy laalo laalo képp daal laa fa gisagul mais lépp luy dem ci ci moo xam ndékki ngay jaay moo xam añ moo xam reer boo ñëwee yaay ne agro dina la jox ne la demal liggéey ba pare laaj na nan nga ko mën a fayee. boo ko mënee da ngaa faa fay. tey boo ñëwee daan dem ci biti bi jënd ay ñetti kilo ceeb wala ngay jënd genn wàllu saabu di sóor di jaay añ wala nga soxla espagnol soxla macaroni di jaay ndékki mayonnaise tomate yëpp boo ñëwee yaay jàkkaarloo da lay jox lépp ngay jaay di jox la numéro wéef chaque jour boo wàccee di verser te kenn du la soos dañ lay laaj nan a fay parce que nit soo ko nit dimbali nit ki dimbali da ngay da nga xool ni mu mën a fayee ak mu mu fay ko du ko bu fekkee da ngaa nekk sa borom kër wala nga nekk sa kër soxla daan dem ci biir bi jënd ay ñetti kilo ceeb ak ay walaati bi litre da nga nga soxla ci ak ci weer bi yëpp yaa ngi agro jox la ko ba pare sa jëkkër bu la joxee yaa ngi tamit jox la benn numéro boo xam ne ci koy wéer yaay xam sax suñu ñaata ngay mën a wéer pour ñu leen mën a dimbali jàppale la ba tey jigéen boo yeewal sa biir kër nga yor sa ñetti téeméer am nga sa diwlin am nga sa ceeb am nga sa tamaate am nga sa boo yoree sa téeméer ki sa keccat wala jënd sa jël taalal sa njaboot ñu lekk nga dem te kenn loo xama dara muy jigéen te jigéen ñi ñooy kër yi. loolooy dimbal jigéen de. mu ne lu ma yem foofu commerce ñii dañuy jaay classe ñii jaay bisaab ñii jaay congélateur am na ci ñoo xam ne congélateur bi ñu yor ñu koy poussé ak xeer ñii fi di fekk nga jëlee jël courant mu ne booy ñooy yaay agro dañ lay jox congélateur wala frigo yaa xam tere nga soxla yaa xam cuisinière yaa xam machine à laver yaa xam salon pour ñuy daaj ak góor gën a koy jox. maa ngi ñëw dama nekk ci yoon. yaa ngi dégg boo loolu jaay jàngoro jox ko jaay koy intégré sept mille francs ngay joxe ñeenti photo ak ñaari photo ko carte d'identité bu dee daare alimentaire doo joxe dërëm boo ñëwee noonu la joxe jour bi lay indilee ci bagage si suba si ngay commencé verser mais su fekkee denrée alimentaire la nag tey jii gurtu ndox bee bu dee ñaar fukk lay jàpp soo yee ma jënd ko fukk ak juróom yow nga teg ci juróom ma jox la day mën koo fay te xam ne sa juróomi dërëm mu ngi ci biir parce que nit soo koy moo tax tey bu jigéen jox la jigéen bu nekk sagam moo sa mbokk seet si la sa nawle seet si la jamono metti na courant jiital nañu dépense jiital nañu njàngum xale yi jiital nañu leneen ak leneen jiital nañu jigéen mënatoo am salon am chambre à coucher. maanaam kay nee na dama lay jox salon bu bees tàkk tey jii képp ku la muy sa mbokk muy sa nawle nga mun ko entrer sa néeg wala sa saal parce que jamono. ci kaw loolu yóbboo ñu yaa jàppaloo dina ko yombal nga am apport boo dugal di ko fay naan te doo ko yëg mu ne du ma yàq foofu dafa am jigéen yoo xam ne day ni am yaay ja agro soxla nañ ko te nekk fa yaay ja agro amul jël yaay ja agro amul lu jub yaay ja agro amul cuuraay yaay ja agro amul géej amul diwtiir ñu ne nañu xool jigéen ñi nañ lañ leen di jàppale ñun nag financement argent bi ñuy def ak bi ko nit ñi desee bokkul ñun suñu financement c'est islamique islamique mooy bu ñu la lebalee cent mille cent mille ngay fay bu ñu la lebalee deux cent mille deux cent mille ngay fay boo fayee deux cent mille booy yooyu jox la trois cent mille nga fay quatre cent mille booy yooyu jox la six cent mille ñun ak yow ba Dubaï ñun ak yow ba Funkolo bi ñun ak yow ba fépp kolo ade loolu nag soo ko buggee benn yoon benn yoon ngay ubbi frais de dossier dix mille francs ñun suñu financement amul intérêt yaa ngi àgguroo day ñëw pour dimbali jigéen parce que banque yi sonn nañ leen intérêt sonn nañ leen te nit soo ko bëggee dimbali doo ko may ñaari junni doo ko may ñetti junni da nga fekk ca la muy liggéey ca la muy yëngu nga puus ko ci mu mënal boppam bu ëllëgee boo ko xoolee fii ñaari weer bu nekkee point A mën a point B wala léegi yaay ja ak roo adhéré liggéey ak yéen jàppale leen bëgg naa bu déwénee suñ fi ñëwaatee ci ci weer bii ci weeru mars bi fekk tey am na yeneen jigéen yoo xam ne ñu ngi wax ci njëriñ bi ay jaaxal ma daanee ko sama kàddu. si kër ak santam mu yaatu ci teew bi tey muy jotaay boo xamante ni mën nañoo wax jotaayu jigéen ñi la waaye nag jigéen ñi saa boo xamee ni woote nañ jotaay jotaay boobu jotaayu lislaam jotaay boobu jotaay bu yàlla di gërëm la jotaay boobu jotaay bu yonent bi di gërëm la ko waral mooy mboolem teraanga yi nga xamante ni yàlla defal na ko ci jigéen benn rek laa jiitu muy saar yu mel ni ci alxuraan muy sóorat Nisaa jagleel da benn góor am beneen bi ci toog mooy Seydina Muhammad bi nga xamante ci njaal benn beneen bi ci toog mooy Seydina Muhammad bi nga xam ni nit ci njaal benn yàlla jigéen nga ko booleel muy soxnaam mu guddee ko ànd ak moom ba mu liggéey ci lislaam liggéey bu muy bu ci liggéey ngir wan leen ni jigéen jooju Seydina Mohamed sargal na Seydina Mohamed dem na ba jàkkaarloo moom ne ko lan nga bëgg ma defal ndox mu ne ko man de su ma sañoon ci sama dund du ma am wujj mu ne ko li fekk yaa ngi dund du ma takk ñaari soxna ci yow laay yem muy soxna Xadi Jeex dund na ànd ak Seydina Mohamed ba jóge fi Seydina Mohamed ci moom la yem dem na lu yàgg Seydina Mohamed jëlaatul keneen ba yàlla suñu borom ne ko soññaat ko ci mu jëlaat soxna muy door a jël keneen ndax liggéey boo xamante ni jigéen liggéey na ko ci jëmm jigéen xamante ni moo njëkk des ci lislam kon saa bu jigéen ñi wootee jotaay jotaay bu am xorom lay doon jotaay bu yàlla di gërëm lay doon jotaay bu am njariñ lay doon tey nag dañ leen jàpp di leen présenté waale liggéey boo xamante ni jigéen nii yéen moo ko taxawal waaye nag olof yi dañuy am lu ñuy faral di wax dañuy suufu dara ku fa jaar guddi xam na muy meññ jaar nga fa ba cëpp soxna Fatou mi ñu àndal nag day ko léegi mu ne derrière chaque grande a a bu rafet ak taar bu a sa poset def ci xaalis bu bëri ku la waree nga may ko junni grande dame mooy nga am capacité d'esprit bu yaatu boo xamante ni di nga jàkkaarloog say nawle xam li ñu waroon a mën te tële te dimbal rek añ leen nga ñëw ànd ak ñoom la leen manqué nga yokkal leen ko ba fa nga toll bañ di la joxoñ ñu toll fa ñoom it bañ di leen joxoñ loolu moo tax loolu moo tax soxna Fatou bi mu jógee jaar jaar jaar yi mu jaar muy ay jaar jaar yu tar te metti lu jiitu muy am dara tey mu dund ba yàlla teroo mu mën a dem ci avion ko ñëw yor teraanga ju yaatu mu xam xel ni loolu kat bi tam waaye ci bëgg suñu borom la rek ak ñu ko yàlla booleel ñu taxaw moo tax bu leen xoolee yéen jigéen ñi ci li di yëngu ku ci nekk di di napp napp ci dara bu xam ne kon waxteef la ci moom mu gunge leen jàppale leen ba fi ngeen war àgg ngir seen njaboot ngeen àgg moom nag benn yitte rek la am mooy jigéen ju nekk yéene bi nga am ci sa bopp ngir bëgg faa egg mu gunge la ba doom koo xamante ni moo lay taaw ba teg loola nag moo tax mu taxawal yaay ji agro heure bii daaw le 8 yaay ji agro taxaw na waaye kenn sànq ba mu soxla faaw ndax day soog a tàmbali waaye heure bii ren dañuy def le ay jigéen jóge nañ ba ñëw defaral ko sargal sargal ko ci 8 mars bi xamal ko ni yaay jigéen joo xamante ni foog ñu jëlee foog ñu jëlee te loolu yëpp ko ci boppam bu baax a baax a baax kon loolu moo tax tey jii ñu wàccee fii ci Samainane fekk leen fi yéen soxna yi dugg loolee jigéen ñi dëkk yooyu def buñ fi ñëwaatee déwén ngeen def ndax jëflante boo xamante ne di ngeen ko jëflante ak sama soos te muy am fu mu leen leen di yóbbu. loolu nag moo tax El Hadj di jàmbaar ndax ay nit am na lu ñu bëgg xam ne am na lu ñu mën a ñàkk da ñu bëgg te mënuñu koo ñàkk fan la nekk nga dox fa ko gis ko bu dee yow la ko yàlla def nga yëkkati ko jox ko bu fekkee yàlla def ci yow faw ko yàlla def nga doon ko xam ko yóbbu leen ko mu jëriñ leen ndax loolu nga xam ne ji gi war a doon ci ñoom doon ko ko. tàcc leen loolu waaye. waaye nag kon alaaji Malick ñoo ngi lay ñaanal sa yéene ak sa bëgg ci soxla yi yàlla suñu borom defal na sa jot yàlla suñu borom defal na ci lu sa jot li nga ci bëgg nga am soxla yi nga leen di soññ yaay nga am bu baax baax ndax soxla la soo xam ne du la romb dina may ñaan téeméer bu subaa ngeen daje nga koy xalaat ci looloo bu ñu la may junni Ousmane ngay daje koy xaar ci waaye dina la fekk nga yor xaaral joo xam ne ñaar téeméer nga ci def wala ñeenti téeméer wala ñaari junni bu fexe ba nga def ci ñaar fukki junni fexe ba nga mat ñeent fukki junni fexe ba taabal nga doon place fexe ba place ko doon ay magasin fexe ba magasin yooyu doon jariñ ñu sàmmal ñëpp noonu lay doxee ndax nit dañuy wax ne di ko may jël jàngal ko lu ñuy na ko tawfeex yoo xam ni dafa moom da koo teel a doo naan da ngay wàññi rek di weer kon jërëjëf. xalifatu seexi wal muxtaar yaa fi di mbar yaa bi fajal diine may ay daanam nga ñëpp la yow Malick ay li nga doon Malick soo ko bañee fekk nga gën ca ñaaw. daal bi Cheikh du siis. daal bi Cheikh du jiw daal bi Cheikh du wax lu ñaaw daal bi Cheikh day yaatal. taalibe Cheikh bu waxee rek bala mu waxati muy déwén wér di lii laajal Cheikh Serigne Cheikh Tidiane si almaxtum ca Tiwaawoon Malick Gueye Malick Gueye yéey ma samba yi li la yàlla may génne ko sa yaay mooy sa xol lu ko dindi rayo bi jeex na bu doom yi ma ngi àtte sayaay mooy layoon naa géej gi ba yey na leen Malick ku ma bëgg Malick ngeen ñi sa loxo may xool ku leen xubul xaar fi ñëw ñii ñëpp ñëw fii moo gën a seetlu sama bopp. waaw waaw parce que ñii boo leen jàppoo ak ñoom doo leen bëgg dañoo xam ba benn sax dañ koy jël moo ngay nag dëgg la micro micro bi. mais man maa si micro bi micro bi micro bi. maa si man ma jàpp man aw lu marché sama nekk. marché sama nekk bii moo ma gënal jabar moo ma gënal doom parce que man lu ma am fii lay jógee li may dundee fii lay jógee tey marché la man ñoom moom moom xëy na gën parce que tey marché sama nekk man sama xol jaral na ma sama paquet bii presque ma fàttali ko léegi mais ci service bi maa ngi si parce que ñun ñoo ne woon mën nañu ba ñu jox kon ñun war a am soxla tey nag ñii di ñëw di maral mbay maral mbay man de jàpp naa ko te yéen a tax ma ñëw te bu fa dem dama ko rëccu parce que sagu jigéen bi yàlla da ngay ñëw rek bu fekkee xamal nga loolu sababu lu dul jàppale moo sababu yéen nag ay jigéen ngeen man la ma mën mooy dem xool bu baax indil leen. est ce que nag yéen a koy ñëw dinañ fi ñëw waxtaan ak yéen ngeen xool noo leen defee ma ci lu ma ciy def ma ciy toogal. Fane Mbacke loolu seen yëf la jigéen ñi yéen a ko moom yéen a koy lijjantil moom li mu mën mooy gis lu baax indil leen te am ñi tam am alal tey woo nañ ko léegi amal ko. projet marché bi génn na waru ko ci woon saxul plan bi génn na moo neewoon sax moo koy woon comme génn na tey la génn donc tey ci biir marché bi il faut tamit ñu xamal leen gën marché bi bu yàgg tuuti dañ ko def kii boobu. loolu yàgg naa loolu moo taxoon ñuy gën gën taxoon ñuy xeex. waaw lépp yow wax financement rek nga ko waa financement la ñu ngi ko li jëm lépp nga leen financé ñëpp ñëpp am xaalis ñëpp la ci jàpp. waa léegi nag kàddu gi jeex na dafa mel ni liñ doon def pare na yaa yaa ngi agro.